wala ngay jékki-jékki di triste sa xol bi di naqari wala ngay nerveux wala ngay gaaw a mer hypersensible gaaw a mer gaaw a mer te fekk na de nature yow nekk woon nit bu gaaw a mer il faut que loolu ñu préciser ko ndax boo nekkoon de nature ku gaaw a mer moom boo nekk en dépression nit ñi duñ ko xam yow sa doo ko yëg parce que sa nature la mais ki nga xam ne sa nature du nervosité du gaaw oh, oh. baad aouzu billahi mina sheytaani rajim alhamdulilahi rabbil alamin chers internautes chers abonnés maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen j'espère que vous allez bien ñun alhamdulilah ñu ngi saafante yéen ci weeru koor gi nga xamante ni mu ngi tàggatoo ah, mu nekk loo xamante ni nag euh, xaw na metti mais nag euh, gan moom bu ñëwee tôt ou tard dana ñibbee ñuy ñaan yàlla rek mu nangul ñu nangul leen nangul mboole mu jullit tey nag euh, ñu buggoon waxtaanee benn sujet boo xamante ni ah mu nekk sujet sensible mooy li ñuy wax euh, la dépression mbokk yi dépression nag dafa mel ni ñu bëri xamuñu ko dañ koy jaawale wala dañuy du xam exactement mooy lan ñu bëggoon leen ci indi quelques éclaircissements ndax jafe na doomu aadama juddu ba màgg ba dee te te ñamul dépression da nga koy wala nga bañ koo yëg koy xam wala nga bañ koo xam mais dépression nekk na li nga xam ne dafay yàpp population yi rawatina jigéen ñi. Euh, ak xale yi parce que dañu fragile dañu émotionnel ndax dépression en général nit ñi émotionnel lay gën a yab góor ñi ñu ngi ci biir macha allah ndax góor ñi sax dañuy wax ni euh, ci kaaw dépression ñoom la xaru gën a yab parce que góor du wax du exprimer wu du génne li nekk ci xolam. dañuy faral nekk dans le tabou jigéen chance bi mu am mooy dañu am la parole facile am nañu facilité wax exprimer seen douleur kon ñu indi leen ay signes yi nga xamante ni ku ko gis sa bopp xamal ni yaa ngi ci biir dépression mën nga am yépp comme mën nga ci am à partir de 3. kaat jëm kaw am na ñoo xam ne dañ naan benn rek boo ko amee jàppale ne alerte la ndax normalul lan mooy dépression mbokk yi mooy sa yaram sa système nerveux daf lay alerte que ni euh, moment yi ngay dund wala bokk relation yi ngay dund c'est un peu toxique wala c'est toxique wala liggéey bi nga nekk euh, da nga surmené li nga xamante ni mooy sa capacité en tant qu'être humain walla euh, feebar mun na la jox dépression mën nga am benn élément déclencheur bu ci mel ni décès wala lu mel ni divorce wala lu mel ni perte du du travail wala yu demee noonu wala stress chronique boo xam ne dafay yàgg nga xam ne am na xale yoo xam ne dañuy judd rek nekk liir bu dépressif parce que tey boo ëmbee sa doom nga am nga amee dépression wala nga amee stress post traumatique nga wasinee ko noonu xale bi liir bu day judd stressé nekk liir bu weex mun na ko màggaale da koy topp ba giiru dundam parce que euh, macha allah émotion yi yaay di xale bi da koy yëg en général ñu bëri foofu lañ jëlee euh, li nga xam ne mooy euh, stress ak ak euh, dépression ndax stress mooy indi dépression dafay nekk li nga xamante ne ay succession la ndax stress boo ko fajul jëlee ko en considération moo la yóbbu ci dépression fil bu sew moo dox ci diggante bi te stress li ko mën a joxe taux de problème yu bëri la du ñàkk bés ñu defal leen ci sujet ñu ngi ci dépression ndax mooy bi gën a metti te gën a naqaree xam ndax nit ki day dund nekk nit bu dépressif di dox ak nit ñi di waxtaan ak nit ñi fekk na rien ne va ma indi nag benn éclaircissement mooy dépression du folie du dof ñu bëri yaakaar dépression mooy dof jotewul dara ak dof ndax ki amee dépression dafay lucide lucidité mooy lan mooy day xam li ñu koy wax euh, mu déliré wul mu ngi dans la réalité donc amul lenn lu ñu mën a woowee ni folie la. dépression nag mën na la yóbbu ci folie waaw parce que am na fu muy toll boo ko traité wu mu yóbbu la ci folie léegi ñëw ci yi nga xam ne mooy indi dépression signe bi ci jiitu mooy li nga xamante ni moom la ñuy wax euh, euh, ñàkk objectif de vie. commencé jékki-jékki sa dund gi yow bëggatoo ci dara bu doon da ngay liggéey boo moytu da ngay auto saboté sa bopp ba liggéey bi dootoo ko def comme il se doit wala sax nga démissionné sans aucun motif ngay jékki-jékki di triste sa xol bi di naqari wala ngay nerveux wala ngay gaaw a mer hypersensible gaaw a mer gaaw a mer te fekk na de nature yow nekk woon nit bu gaaw a mer il faut que loolu ñu préciser ko ndax boo nekkoon de nature ku gaaw a mer moom boo nekkee en dépression nit ñi duñ ko xam yow sa doo ko yëg parce que sa nature la mais ki nga xam ne sa nature du nervosité du gaaw a mer mais gis nga léegi da nga hypersensible lu tuuti daf lay merloo ba pare dépression mën na la yóbbu ci nga agressif dépression mën na la yóbbu ci perte d' appétit maanaam nga bëggatoo lekk wala boo tiimee lekk sa appétit coupé euh, sa poids di wàcc ngay jeex di ñees di ñees di ñees doo xam lu lay jeexal wala sa lekk lu bëri bëri bëri bëri bëri di di am yaram di am yaram di jël poids wala sax ngay lekk te doo am yaram yow yaa ngi lekk mais doo am yaram loolu signe dépression la. dépression mën na la yóbbu ci insomnie yi doo nelaw guddi guddi bu jotee ñëpp nelaw yow sa bët day wow kong doo sax gémmantu bay nelaw nga jóg toog ne dojj. bu ko defee doo mën a am gémmant doo mën a am nelaw dépression tamit mën na yóbbu ngay nelaw rek di nelaw di nelaw di nelaw yow bu nit ñi yow def seen soxla yow da ngay préféré nelaw tàyyel sa yaram bi tàyyel diis ba xamoo lan moo diisal sa yaram mënoo def dara da ngay xëy sa liggéey kër mu doy jigéen nga ne sa ce que ñetti ñetti xob da toog jàkkaarloog sa liggéey kër mu lay xool nga koy xool doo mën a jóg pour dem def ko nga tàyyel te pourtant meloo woon noonu dépression dana yóbbu ci par exemple bu dee jigéen la da nga gis ne bu daan léttu di fireeku chaque semaine wala chaque mois mun na téye létt 4 mois du ko firi létt yi nekk ci bopp bi du raxas bopp bi euh, ay épilé wu genre petit soin yooyu nit daan defal ci boppam du épilé wu du raxas ay tànkam mun na sol benn robb wala pyjama bi mu fanaanoo woon depuis barki démb mën na ko sol ñetti fan du sangu dépression en général bu dalee nit du bëgg a sangu bëgg a laal ndox du du jege ndox mi parce que lu tax mooy day tàyyeel jóg dem def set mouvement banaan la sangu da koy tàyyeel bu ko dépression mën na yóbbu nit ci muy toog di jooy bu ñu ko waxee lu tuuti rek xol bu jege mu jooy wala bu xalaatee dara loo xamante ni passé na mu di ko indiwaat di ko présenté di di jooy mu di ko def tristesse di am ay crise d'angoisse jékki-jékki jooy jooy jooy jooy te pourtant actuellement amul daal lu koy jooy lu koy jooyloo mais li muy jooy xëy na si par rapport à quelque chose li muy xalaat dépression mun na yóbbu ci nit muy soqi karawam fu mu toll wala di ngeen ay wewam di màtt wey wala di yëy ay yéreem di def des choses yoo xamante ni dafay répétitif parce que moment boobu mu ngi am altération du cerveau et que mu ngi commencé dund des choses yoo xamante ni intérieurement lay feeñ dépression mbokk yi ba tey mën na yóbbu nit ki ci comme ni ñu ko waxee mu agressif wala mu yóbbu ko sax ba ci violence dépression da yóbbu ci nga yor ba yor liir toog jàkkaarloog moom muy jooy doo doo doo doo def benn réaction parce que uniquement que ni dafay am maanaam nekkatoo réactif la personne n'est plus réactif mënatul jékki-jékki réagir comme auparavant maanaam day mel ni dara safatu la en fait dee rek ngay bëgg parce que da en fait de compte sama dund gi lan moo ci am cafka lu tax ma war a dund lu tax lii lu tax laa nga jël sa problème yi àddina yépp teg ko sa kanam jàkkaarloog moom amoo ci solution nga jàpp ni solution bi rek mooy dee donc dépression conséquence yi mën na yóbbu dépression da gis nit bu am doomam nit bu am doomam doom ji toog di jooy euh, mu mu jooy yooyu mu def ko comme mu mel ni dafa am ay yamb yu dox ci biir noppam parce que du ko supporté mën na dóor doom ji rek noppi waay yow parce que am na loo xamante ni mu ngi koy def ci boppam ci manière bi nga xamante ni euh, noonu lay sentir jooy yi du coup nit bi dépressif dafa naqari dëkkal parce que boo dëkkeek moom danga naan kii ni mu mel nii ni mu mel naa ni mu mel ne wala kii daf jigéen ñi dañoo taayal du ñu sangu du ñu lii du ñu naa da ngay gis jigéen boo xam ne day yeewu pyjama lay doxee ci kër gi na na na bu ko defee ne ay mauvaise habitude la da ngay seetlu nit ki bu dee nii la mu samel ci géeru dundam mën nañ na d'accord kii lii mauvaise habitude la mais bu dee nit ki mel woon nii ngeen jékki-jékki gis ko mu mel nii dimbali leen ko parce que c'est une personne qui a besoin d'aide dimbali leen ko ñu gis ne dépression bu dalee góor par exemple mën na ko yóbbu ci mu nekk góor bu agressif wala góor bu violent mën na ko yóbbu mu abandonné propre euh, activité professionnelle maanaam mën na ko yóbbu ci euh, mu am perte de libido comme jigéen tam mën na ko yóbbu mu am perte de libido mën na ko yóbbu ci mu xëy mën na nekk jàkkaarloog télé soo ba ngoon jot H24 du def dara télé rek lay seetaan julli sa dootu ko mën a def dépression mën na la yóbbu nga toog nekk ci gis nit mu nekk ci portable nga dem ñëw dem ñëw dem ñëw matin midi soir même fu mu toog du fa bouger foofu lay toog lekk sax da koy taayal def wala bu tiimee lekk daanaka day mel ni day lekk lu suur tous ces genres de signes là ñàkkul ni am na yeneen yoo xamante ni signes yu bëree bëri que ni euh, dafay wane dafay indiquer que ni nit ki mu ngi sombre ci dépression. kon mbokk ñu gis ni dépression bu la dalee mën na la jox tamit li nga xamante ni mooy bopp bu metti parce que le fait ñu bëri bu leen dalee du ñu nelaw. wala ñuy nelaw nelaw yu bëri yu ëpp dafay dem ba daf leen di jox bopp yu métti yoo xamante ni paracétamol du ko faj benn garab du ko faj benn benn benn garab du ko faj bopp bi nag bu méttee ba sedd mën na def genre tayal tayal boo xamante ni da ngay euh, commencé loof doo bëgg dara ci àddina donc dépression mën na la def tamit ngay am sens de culpabilité sentiment dévaloriser sa bopp man duma dara man de toutes de façons dama dama dama dama nit bu bon laa parce que loolu lañ wax parce que en général ñi muy daal boo seetloo depuis ñu nekk xel da yor ay waajur yu weex a weex a weex a daan daan la dóor ba ngay bëgg a dee waajur yu violent mën nañu wax wala waajur yoo xamante ne dañ lay dévaloriser di la xas di kii donc nga nekk xale màggee noonu yaroo noonu nga dugg ci sëy dajeeg borom kër gu mel noonu mooy c'est la mort wala nga nekk góor dund loolu ak say waajur nga màgg dajeeg jigéen boo xam ne noonu la tamit c'est wala tamit nga dund ci loolu dem di liggéey nekk ci place liggéeykaay boo xam ne dafa nekk ñëpp toxique nii la ñuy dund dafay metti donc mu nekk yoo xamante ni euh, day am loo xamante ni tey yaa ngi ko doon dund intérieurement mosoo ko extériorise wala yaa ngi doon suuxaale ak moom nga xëy xëy nag am lu ko déclenché mu nekk loo xamante ni dafay euh, conséquence dafa terrible bopp yu métti yooyu tey dafay dem ba mën na la jural comme ni ñu ko waxee insomnie insomnie yu jural la boobu métti mais nga am tamit li nga xamante ni mooy euh, confusion mentale bu ñu nee confusion mentale nag mooy trouble de la mémoire mooy dootoo fàttaliku dara loo def léegi da waa def naa ko am def ma ko wax naa ko waxuma ko wala nga war a def dara fàtte ko wala nga téye dara ci sa loxo commencé di laajte waaw li ma sama yëpp li ma téye woon léegi fu ma ko teg wër ko bay ray sa bopp di jooy fekk ne boobu yaa ngi ko téye ci sa loxo euh, fàtte fàtte gu tar goo xam ne yow sa jëm bopp da nga xam ne lii normal ndax meloo woon nii parce que loolu dalay may ni nga xam ne ah kon melu ma woon nii kon lii cela veut dire que lu ma war a jóg la am difficulté tamit concentré wu maanaam bu doon da ngay jàng dootoo mën a capter dara yow dootoo jàpp dara jàng bi moom euh, sa xel bi dootul jàpp dara ak même boo jàngul yow da ngay gis ni sa mémoire dafa fatigué mënatul capter rien du tout mënoo mémoriser rien di tout booy julli dangay am balaa nga koy xam sa ngay julli bu dee nag di kuy faral di julli nga boo nekkee dépression mën nga julli ràkk yi fukki yoon di di ko dootoo xamati ci benn ràkk nga nekk ci ñaari ràkk nga nekk tari nga faatixa tari woo faatixa su jot nga su jotoo mën nga repasser julli mille fois te pourtant julli bi. Euh, doo mës a xam li nga jul lu mu doon donc du coup mu nekk loo xamante ni signe bu flagrant la que ni yaa ngi ci dépression manque d'énergie maanaam sa yaram di tàyyel ngay sonn fatigue doo bëgg def dara comme ni ñu ko waxee woon loolu tamit ci signe la bokk donc ñu gis ne euh, ñàkk euh, perte d'intérêt pour ses activités maanaam say activités daal dootoo ci bëgg dara dootoo ci bëgg dara bëggatoo bu doon da ngay nekk sportif bëggatoo sport bu dee da nga daan jàng bëggatoo jàng bu dee da nga daan recherche bëggatoo ko def mu nekk lu doy waar ngay am tamit ay idées suicidaires sa dund gi de amul sens te nga xaru <laughs> yow kenn bugg la di yow de toutes les façons yaa def li yaa wax li nee nañ ñi nga mel di culpabiliser wu lu tax mi defoo lii lu tax meloo ni je n'arrive pas je ne donc du coup culpabilisation yooyu daf lay ronger ba yow da ngay gis ne sa dund gi intérêt bi rek mooy nga dee. beneen tam mooy dépression da lay jural loo sumb du egg loo dem ba dugg ci da koy bàyyi pour nga xam nit kii pour nga xam ne da nga dépre da nga mooy loo dugg rek dafay doo ko eggale mën nga am mille projets nga dugg ci au début nga am enthousiasme deux secondes rek nga bàyyi léegi nga am dépression aiguë bi nga xam ne day dem di ñëw mais dafay subtil te doo ko yëg am dépression boo xam dafa pesant bu la dalee ñëpp dañu xam ni yow mii da nga feebar yaa quelque chose qui ne va pas léegi nag ñu yore dépression aiguë moo fi bëri yore dépression aiguë di dox ak moom di ko sentir te xamoo lu la dal dama dañ ma liggéey est-ce que aw ma rab sama àndandoo yi la sama nangam bi la seytaan bi la nga sonn ci faju olof dama ne fajul faju olof wala faju faju faju ruqiya sharia iya amul problème mais fajal sa bopp faju euh, médecin médecine parce que faju booy faju fajul ñaar yëpp demal faju defal dama def ruqiya waaye demal def li nga xamante ni mooy médecine ndax faju ci diine nag laa wax waxuma faju ci ay maaman ndax maaman ñi moom dañ lay tépp te duñ la faj kon ñu jéem ci bàyyi xel li nga xam ni mooy dépression aiguë bu sew boobu nga xamante ni bu ñàkk fayda la boobu mën nga bañ a egg ci naanum garab mën nga gis kolo waxtaan ak moom ñu poser des questions accompagner la jàppale la motiver la nga relever waat jóg mais bu ko bàyyi psychologue boobu tout temps day fa dem parce que boo ko bàyyee rek nga sombre waat parce que loolu soxloo goo garab mais ki nekk dépression bi nga xam ne dafa nekk dépression dépression euh, naka laa ko mën a woy sax bu fës bu ancré déjà kooku traitement médicamenteux rek moo ko ci mën a génnee parce que dépression am na fu muy toll. kenn mënatulaa ne dañ lay jox dañ lay bàyyi noonu nga dem déedéet il faut nga am euh, traitement antidépressif nga di ko jël am tamit euh, psychothérapeute boo xamante ne daf lay euh, accompagner diagnostiquer sa dépression c'est dû à quoi lan mooy li ko causé lan mooy li nga xamante ni mooy li ñu la mën a jàppale boo paree nag comme ni ma koy faral di waxee nga ut ay formation de forte personnalité nekk des formation yi nga xamante ni daf lay jàppale à ce nga solidifier sa sa sa euh, dugg ci formation développement personnel yi parce que tey dama naan gis nga nit ki bu fekkente ni préparé woo sa bopp ci terrain jungle bii di àddina wallaay waxuma la ak dépression waaye déppati ko ngay am maanaam dangay dof tàqali ko sagu ndax nit ñi ils sont tellement braves pour dof loolaa te loolu rek mooy seen liggéey ndax suñu société mooy nga xamante ni nit ñi dañu négatif xamuñu positif xamuñu motiver nit xamuñu jàppale nit xamuñu su ay waaye dafa dof di kex kex kex kex kex moo léegi dinaa ngam kex kex parce que xamuñu gravité bi xelu doomu aadama mun a subir ci yenn kaawu euh, viol wala violence wala toxicité wala beaucoup de choses xam ne daal mën na yàq doomu aadama te duñ ci bàyyi xel kon nañ ci bàyyi xel di ni ngeen abonné suñu canal partage vidéo yi te xam ne dina amal njëriñ ñu bëri ngeen di déglu seen yaram di bàyyi xel seen bopp bu ngeen gisee signes yu mel nii alerte la commencé leen xool fu ku ngeen di waxal waaw man na bu ma xool ku ngeen di wax man professionnel laay wax waxuma xarit ak yaay ak papa ak nangam ak sàngam professionnel boo xam ne dafa leen di déglu accompagner leen taxawu leen motiver leen ba ngeen récupérer waat seen énergie de vie commencé rayonner commencé am joie de vivre commencé bëgg àddina gi commencé xam ne àddina bi da nga fi ñëw pour dund pour euh, jaamu yàlla jël sa jaamu yàlla en considération te xam ne euh, yàlla suñu borom sàkku la pour un néant yàlla daf la sàkk pour bit bu benn précis nga jël ko en considération xam ne sa diine gii mooy sa mooy sa kaaraange boo ko amee lu bëri mën nga cee mucc waaye boo ko amul lu bëri doo ci mucc bu ma nee diine nag waxuma julleeg woor mécaniquement ak déglu alxuraan déedéet jàng diine dañ koy jàng ba mu leer ci sa bopp bopp bii parce que diine bu leer sa bopp rek am na ci yoo xamante ni néew ma du la dal mais du la du la yab du la yab waaw mais bu fekkente ni yow amoo benn notion benn base da ngay dund pilote automatique sa diine joxoo ko benn valeur quand même sa dund dafay xaw a jaxasoo. kon bokk yi ñu ngi leen di fàttali rek ni bu ngeen bëggee euh, suivre suñu ay vidéo comme niñ leen ko xewoon ci commencement bi rek bu leen fàtte abonné like partage vidéo bi pour ñi nga xamante ni dañuy soxla ay séance de coaching privé parce que des fois nit day ñëw ci man soxla séance coaching euh, mais nag du xam ni séance coaching yi dañ koy fay ab paiement la. waaw su rendez tamit lay doon donc euh, pour rek nit ñi bu ñu ñëwee bañ a insister ci sama whatsapp bu ñu ñëwee di wootee sax mën na ñàkk je me dis ma soxlaa rek nañ ma bàyyil message man moom damay répondre à tous les messages waa di fexe rek jox leen information yi nga xamante ni moo jëm ci séance coaching yi ngir rek ngeen mën a bàyyi xel que ni euh, rendez-vous yi c'est sous payant da ngay fay bu ko defee ñu mën la accueillir déglu sa problème accompagner comme il se doit kon ñu ngi leen di jaajëfal encore une fois di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen yoon incha allah seen yeneen vidéo